nañ dem seetaan vidéo maître El Hadj Diouf li mu wax président Macky Sall. def président li nekk président du la dal maintenant bu ñu liggéeyee ñun dañ taxaw pour di sëriñ jëlee fi li ki la liggéey war nga ni ko loxo def loxo mën na ko dindi mais li kenn xamul lan la. président dañuy ñaawal xanaa. moo maître ne maître nee na. moo ko déggandoo mu ne pare na pour wuti sëriñ ndax Macky dañ koo liggéey démb jot nañ xibaar jot nañ que conseil constitutionnel dafa daal di casser décret bi nga xamante ne votel nañ ko ki nga xam ne mooy président Macky Sall pour mu dem ba le 15 décembre mbir yi jaxasoowaat mbir yi jaxasoowaat mais man li ma jaaxal président Macky ma magistra yooyu noonu. moom moo leen fal par décret député yu askan bi ñoo leen fal te projet de loi bi décret bi président Macky Sall assemblée national la ko yóbbu député yu vote ko te député yi sénégalais yee leen votel léegi ki ñu votel élire la ak ki nga xam ne par décret si benn décret signature lañ la euh, kiiwee kan moo ci gën a crédible pour déstabiliser wala pour naa lii day am lii am. man dam man je pose une question nag damay laaj. Macky Sall moo nome les magistrats xool leen wóolu leen ne leen yéen yéenay les sept sages teg député yi askanu Sénégal moo leen wóolu yóbbante leen fële ci assemblée nationale pour ñu représenter suñu Sénégal gi gox bu nekk am na député léegi conseil constitutionnel te am na leneen li ci lëndëm pour vous dire que mbir yi dafa doy waar ñoom nee nañ Macky du yokk amul. du yokk benn fan sax ci mandat ñoom ñoo ko wax dañuy kase décision bi ñu joxaat ko beneen pouvoir mooy ban xoolal date léegi Macky bu leen newee le 15 lay retenir wala le 16 la koy yóbbuwaat wala le kii la koy yóbbuwaat donc léegi ñoom fi ñu dem bu ñu demee ba jël décision casser décret bi bu ñu demee ba jël décision annuler li nga xamante ne moom la assemblée nationale décidé. Oui, les nañ qui sen nañ jël sen fulla ak sen fayda ne ko ñun ñoy proposer date bi ñun ñoy proposer date bi mais do bokku il faut nga organiser l'élection yi mais yaay joxe date bi le président Macky Sall bu le 15 décembre le proposer té certains de ses opposants une élection mën nañ ko organiser le 2 avril xana yeen da ngeen sénégalais fi ak 2 avril le cas de Rose Vardini, kon fu muy féete ba pare conseil constitutionnel d'après cette publication dañoo maintenir les 20 candidats maanaam Diomaye jàll Rose Vardini, mi am double nationalité jàll on est dans quel pays fan la nekk ñun jaxaso bi pour lan la au fait ñom dañoo nek man je me dis que ñom xamanté nañ de sénégalais la bëgg tour tuur lëndëm sénégalais la bëgg a sénégalais lañu bëgg jappé sen sen seen seen wala ay ay ay ay ay nit yu tekkiwul dara loolu la ñu mën a gis lu ko fi jar léegi les trois morts yu mort pour manifestation parce que report des élections am na ana sens seen dee bi fan la tëggu ci lan la tëggu lan mooy les raisons tey ñu ngi organiser waat beneen manifestation le quinze à quinze heures yàlla rek xam lu fay xew pour lan pour ñu toog seen bureau di jël seeni décision di waxtaan mais tat El Hadj Diouf nag jël na décision nee na day dem wuti sëriñ sangat président Macky Sall jox ko ay garab mu takk ndax dañ koo liggéey ah man nag maa ngi bëgg a gëm lu ñu wax président Macky Sall dañ koo liggéey président Macky Sall mi ñu xam man je comprends pas ce qui se passe dans ce pays kenn mënul xam lan moo xew ci dëkk bi kenn mënulaa wax lii la conseil constitutionnel dañoo annulé léegi nañ proposer date ba xam président Macky Sall lan la ci mën bu dee dëgg la bu dee dëgg la ñoom ñooy décider ñoo yor dernier feu vert bi waa nañ joxe date ñu dem élection dañoo sonn on est fatigué ñoo sonn conseil constitutionnel pourquoi ñu xaar ba ces trois morts ñu joxe seen décision bi lan lañ doon xaar recours bi kañ lañ ko dugal lan mooy problème bi yow doo bokk nanguwuñu li nga wax mais yaay choisir date. ñu ngi déglu président Macky Sall lu muy waxati rek.